Assalamualaikum, Yen mbokki yi rawatina mbokki talib yi nga xamantene yen ak ñuy bàyyi xel ñu ngi santat bu baax sunu borom subhanahu wa taala di julli ci sayyidina muhammad rasulullah sangub sangi di ñaan tay ñaanal sa su nek khalifa Serigne Touba Serigne muntaha Mbacké bashir mu yagg fi lo tànn ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Fall jëm noné lañ ko ñaanal Serigne bi mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa ade yi yeen mbokk taalibe yi gis ngeen jotaay bu am solo bi nga xamantene ku ko gis xamni ni jotaayu khas la ndax xam ngeen ni mbolo bi tok di wa khas di université bu Cheikh Anta Diop de Dakar dafa am benn bis bu mag bu tedd bi nga xamantene ñu koy wacc bis bi nak fasiyen nek nekk suñu kanam mo taxit ñu tok fi inshallah ba ñenn ci ñi nga xamantene ño fasiyene Euh, euh, ñoo ŋànk liggéey bi ñenn si ñoom danañu wax si li nga xam moo di turu mbooloo bi ku mel ni Serigne Mohamed Diop incha allah dana wax ndax moom mooy adjoint Serigne Cheikh Anta mi jëruñ liggéey bi ak Serigne Mohamed Samb mi nga xamante ne lépp luy culturel moo ko yor ak Cheikh Ahmadou Bamba Sène mi nga xamante ne organisation bi moo ko yor waaye dinañ jox kàddu gu mujj gi Serigne Cheikh Anta mi nga xamante ne moom mooy euh, jëriñu liggéey bi. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زنت خسيدتي تعي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu di ziar mbokki taalibe yëpp mu mel ne ni ko sëñ Mouhamed waxee ñu war a andi lenn rek ci historique jotaay bii nga xam ne moom lañ moom la ñu toog toogal fii waa Ahlu Xasida Touba UCAD mu doon mbooloo moo xam ne suñu borom dafa dogal ci atum 2018 ci jeexital gi ci la sosu ginnaaw bi nga xamee ni lenn ci mbokki taalibe yi am nañ xalaatub jëmmal fi bis boo xam ni mboolem murid yi nekk ci université Cheikh Anta Diop yëpp te bokk pas-pas bu ñuy doxee ci sëriñ bi bokk pas-pas bu ñuy doxee ci xaside yi ñooy àndandoo taxawal benn bis boo xam ni day jëmmal maanaam liggéeyub xaside yi ci biir ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci mille boobu nga xam ni mooy université bi ndax kenn ku nekk ñun umpale woon ni maanaam ñun amuñu woon tawféex yi dem ci daara yi jàng alquran comme ni ko ni ñu ko baaxoo defee ñu tarbiye wu ni ñu ko baaxoo defee ne ci kanamu kilifa yi déglu ndigal ni ñu ko baaxoo defee waaye danoo ñëw ñu yebal ñu ci euh, école nasaraan yi ñu fas yéene soobu njàngum adduna mi di ci gëstu waaye li nga xam ni mooy tawfeex gi ñu Sëñ Tuubaa defal ba waxtu wu ñu delluwaatee ca ña ñu bàyyi woon ñu dem ca daara ya duñ ñu xàmmeek ñoom loola mooy xaside yi kon waxtu wu nekk yëkkati baatub cant jëmee leen day war waaye rawatina nag buñ àndandoo ñun ñëpp jëmal ko ci benn bis loolu nag ba mu amee mbokki taalibe yi xaaruñu dañoo dox daal di cee jëm jotaay ba ci njëkk ñu gis na kat dañoo war a ami ndigal ndax ndax laa tafaalu shay'an bi xayri izni fal iznu sartun fi xabal sha'ni looloo waraloon mbokki taalibe yi dañoo jóg dem ci ki nga xam ni lépp lu jóg jëm ci xasiida sëriñ bi xaasal na ko ci xaas goo xam ne ñëpp nangul nañ ko muy sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ñu dem ba ci moom waxtaan ceeg moom laaj ko ci ndigal mën nañu am ngeen ci téeméeri ndigal te dinaa ko ànd ak yéen ci fànn yépp toog ba yàgg sax ma leen ko yéex a def loolu def ab xaal boo xam ne ci mbokki taalibe yi tax na ba édition bu njëkk ba noonu la demee woon noonu lañ ko wéyalee ba ci édition bi ki topp suñu borom dogal ak mbas mi nga xam ni moom la ñu nekkoon ñu amaloon ko ci anamu xarala yi nga xam si ni ko àndoon ak télévision xasaayi TV bu isar Tarqiyyah Daaru Xudoos naka noonu nag ñu jëmaat nag ci bis boobu war koo jëmmalaat ren jii war koo amal le 12 juin bii ñu jëm incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéene waat demaat nañ ba ci sëriñ am soto moom sëriñ Suhaybu bu laajtawaat ko ndigal li mu joxaat ñu ko nañu kat lim bañ leen joxoon muy téeméeri ndigal xam ne ni ful nañ ko ba ñaari junneeg ñaar téeméeri ndigal la loolu doonaat loo xam si ni ak tawfeex la ju ci doolekuwaat ginnaaw bañ fa jugee itam jàll nañ ci sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir ni ko ñëpp xamee ndax moom te teewoon na ci bis bu njëkk ba ginnaaw bañ fa demee ñu demaatoon fa itam jottaliwaat ko bis bi leerlaat ko ko fàttaliwaat ko ko moom itam mu fas ko yéene ànd ak to ñun ginnaaw bi itam demaat nañ ba ci jëwriñ ji nga xam ne moom la sëñ bi teg fii ci Dakar muy sëriñ Alxaaji Mbàkke yu fay bañ fa demee it leeral nañ ko bis bi donte jotaay ba xatoon na lool waaye mu bàyyi ñu xel lool fas yéene moom itam ànd ak ñun bis bi noonu itam la ñu fas yéene ànd kook ñi nga xam ne ñooy suñu magi bopp di suñuy jëwriñ ci biir liggéey bi muy waa diwaanu axlu xasida nga xam ne sëriñ Aliou Diop ma moo ko sëriñ Baye Yérim Aw ñoo ñoo ñoo ñoom la ñuy jokkal waxtu wane ci liggéey bi ñu dañu waan fan la ñuy taxaw ci biir liggéey bi ak wan yoon lañ koy mën a jaar ba mën a am ni nga xam noonu la ko sëriñ bi bëggee kon nag foofa lañu toll ci bis bi xam naa li jëm ci détail yu commission yi ak ni ñu ko répartir itam jëm ci organisation culturelle bi dañuy bàyyi sëñ Mohamed mu joxaat kàddu yi ñi xam ne ñoo war a wéy la loolu ah jërëjëf sëriñ Mohamed Diop mi nga xamante ne moom moo yor li nga xam moo di adjoint yu Serigne Cheikh Anta euh, ginnaaw ba mu àndee lenn si yaatal moo di historique liggéey bi ak ndigal li nga xamante ne am nañ ko si euh, tàmbaleeg bu njëkk ba ak daaw ak ren ak kilifa yi nga xam dem nañ seeti leen noonee lañuy ñuy jàllee Serigne Mouhamed Samb mi nga xamante ne euh, lépp luy culturel bokk na si ñi nga xamante ne ñooy doxal liggéey boobee. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani yaa rabbana kursana bil muntahal muxtaarami bismillah barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax kon rek dañuy jéem a yëkkati ay kàddu ci waa commission culturelle comme ni ko suñu jóorin suñu Moussa di ko faral di waxee maanaam su fekkoon ne bés bi ab jëmm la moom boo moom moo doon doon ruuxu bës bi kon day doon commission boo xam ne commission bu am solo la ci bés bi kon su ko defee rek balaa ñoo guddal dañuy daal di jàll ci li nga xam ne mooy programme bu bés bi comme commission culturelle ni mu baaxoo doone ci bépp commission ci ab daayira noonu la commission culturelle Euhlou Khassida bindoo waaye li ci sofu rek mooy benn commission scientifique boo xam ne maanaam day màndargaal ab euh, ci barab bañ nekk li liñ ci liñ ciy jàng ci barab bañ nekk moo waral loolu ñu laytaayaloo ko benn journée scientifique boo xam ne ci la onze bi lay am boo xam ne programme bi ni mu bindoo mooy ci diggante 9 heures ba 13 heures don de sang lañ ciy def muy maye deret euh, su ko defee ci quinze heures rek dañuy daal di dalal suñuy invité euh, tatay tatagal leen ñu jéem a commencé liggéey bi nga xam ne mooy ay panel ay panel boo xam ne dañ koo def ci benn thème général boo xam ne. ku ku ku ku seetlu bu baax a baax a baax murid danga xam ne xel na am na benn leadership boo xam ne mi ngi ci ñoom li ko dalee ci sëriñ Modou Moustapha ba ci sëriñ Saliou ba mun nañ ko sax ne sëriñ Mountakha jamono jii jii jii bokk na ci loolu loo xam ne li muy feeñal ñu ànd cee nag ak ay borom xam-xam mun nañ cee tudd ku ci mel ne docteur sëriñ Touba sëriñ Touba sëriñ Touba Ndiaye fag fag fag fag médecine mun nañ cee tudd ku ci mel ne Cheikh sëriñ Ibra fay kooku moom it ci docteur la ci fay nekk université Cheikh Anta Diop pour fac lettre mën nañ cee wax ne it ci ginnaaw panélistes yooyu noonu dañ cee am ñoo xam ne ay contribution la ñuy indi gën a gën a gën a gën a gën a gën a feeñal baax a baax a baax lan mooy dëgg dëgg dëgg euh, thème bi nga xam ne moom lañ bëgg a ku ci mel ne Serigne Cheikh Mbacke Ndiaye te nekk ci bibliothèque université Cheikh Anta Diop moom it ñu ko ciy xaar ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir université bi doon ay étudiant ba pare gëstu ñor leen lool loolu daal la nga xam ne moom moom la ñuy bëgg a laytaayee bës bu bës bu njëkk bi lu ko defee ni ci bisu bisub la douze bi comme ni bésu xasida baaxoo mel maanaam dundal alxuraan ak xasida ci ci fànn gu nekk ci wàllu durus bi ak ci wàllu yëkkati bi ci mel ne wàllu yëkkati bi am na kuréel yoo xam ne ñoo nekk ci biir université bi ñoom la njëkk a jàllale ci suba gi su ko si ngoon gi nag la ñuy commencé animation boobu noonu ci kuréel yi ñu ngi ci mën a xaar mën nañ cee xaar ku ci mel ne waa safinatu amaan bu parcelle mën nañ cee xaar ku ci mel ne waa Sicap Rue 10 bu euh, Grand Dakar mën nañ cee xaarit ku ci mel ne Hizbut Tarqiyyah Daaru Khoudoss ak Hizbut Tarqiyyah Asilem ak it waa Ahlu Minam ñooñu daal la ñu war a xaar ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo war a ñëw su fekkee ne ku ci mel ne rajaskat yi ñu ngi ciy xaar ku ci mel ne Serigne Ibra Gueye Baye Bolla mbay ñu ngi ciy xaar euh, sëñ Abdou Khadre Joxaane ñu ngi ciy xaar euh, ñeneen nag ñeneen ak it waa ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir université bi su li ci li ci mel ne conférencier bi dañoo jëloon ku ñuy wax sëñ ahmadu njaay Ngiraan ndax suñ fàttali ko baax samay njëlbeenu kàddu wax naa benn journée scientifique boo xam ne ci liñ jàng noonu lañ ciy génnee fi la philosophie du mouride dans le travail si liñ jàng noonu lañ ko ciy génnee waaye suñu Ahmadou Ndiaye Ngiraan dafa doon koo xam ne maanaam su fekkee ne bokkut ci ñu mag ñi yarit ku mag mu ku mag yar yar na ko ba lu ci bëri xam na ko bu baax ci yoon wi te am na xam-xam bu baax ci ci wàllu woowee loolu daal la ñu waxoon ne moo doon programme bi ginnaaw nag bi ñu jàllalee programme boobu yëpp ñu ci mel na ñu ngi ciy xaar ku ci mel ne sëriñ Basiru Abdou Khadir ni ko sëñ Mohamed waxee ñu ngi ciy xaarit ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa ci biir université ba loolu daal moom la ñuy wàcceegum foofu suñuy kàddu mhm. ah jërëjëf sëriñ Mouhamadou Samb mi nga xamante ne bokk nañ si ñu yor lépp li nga xam moo di culturel ndax bu buñ tuddee bis xasida rek xel yi day dem si li nga xam moo di alxuraan ak wala mbokk yi noonee la ñuy jaaree jox sëriñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante lépp luy organisation moom moo ko yor. auzu billah bismillah inna waliyallah bàkk borom Tuuba xanaa ñu fas yéene yëkkati kàddu rek jëmale ko si commission bu ñaan organisation di commission boo xamante ni moo yor lépp luy liggéey lépp liy taaral bis bi si biir ak si biti ku ne xam te ne ku ne ku wax bi sa xasida wax lu jëm si aménagement ak wàccaay boo xamante ne dina dëppoog bërëb bi naka noonu moo tax ñu xaaj commission bi ay pàcc yu bari lu si mel ni aménagement ak collation wàllu cuisine am na it wàllu hygiène jamono juñ nekk di contexte pandémie moo tax ñu xalaat benn commission boo xamante ni ñoom dañuy xalaat naka lañuy ñuy waajalee bis bi respecté normes yi donte sax wax nañ ni jeex na waaye sëñ bi jeexalu ko ñu ne duñ koy jeexal naka noonu dinañ ci fàggu ay matukaay yu baax jëm si fànn boobu. si wàllu amenagement bi def nañ ci ay yokkute yu am solo wàllu nataal si biir baas bi te it nañ yokk nañ espace boo xamante ni moom la ñu dalalee mbokk taalibe yi am na commission boo xamante ni mooy accueil accueil interne ak externe bépp mbokk taalibe bu ñëw rek si bis bi. lu ko dalee buntu université Cheikh job Diop ba ci bir baas bi inshallah allah dinañ la dalal orienté la ba nga accès ci bir té it bo ogné ko tamit dinañ la dalalat tégal la ci yoon ba nga ogné ko si rek lañuy sako bép mbok mbokk bo xamanteni xamante mu ngi ci bir université bi di bay fal wala ngay dunu khassida nga xamné bis bi sunu bis lay ñu takku jóg laxasaayu fa seen xidma ngir tara bis bi képp ko xamanteni matériel jëm ci walum ay nataal walla ay moket ngir gën a taaral bi wareet ay yeneen bagage yoo xamante ni dinañ ko soxla si bërëb bi booñ ko waxee rek incha allah dinañ ci jokkoo ñu def démarche yi ngir mu taaral bis bi loolu daal moo nekkoon si tënk commission organisation te bennda yi tamit bu soobee yàlla dina tàmbali àjjuma jëm samedi lépp li xeetu benn rek su collation ak it maanaam yoo xamante ni njaay dañ koy soxla dinañ dinañ ko fa def bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. ah jërëjëf Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Sène mi nga xamante ne lépp luy organisation bokk na si ñi nga xam ñoo liggéey boobee waaye mbokk yi dañuy joxe kàddu gu mujj gi ki nga xamante ne moom mooy jëwriñu liggéey bi di Serigne Cheikh Anta Diop mi nga xamante ne bis bi fu muy amee foofee lañ ko tuddee te it moom mooy jëwriñu liggéey bi. jërë ngeen jëf. mbokk taalibe yi fi jaar ci kàddu yëpp ñoo ngi woote ci turub waa ëxlu xasida Touba Université Cheikh Anta Diop gépp ci suñu troisième édition màggalu xasida yi loole nag woote bi dañ ciy jiital suñuy kilifa xam ne sëñ Mouhamed ñëw na ci sànq ci historique bi muy Cheikh Muntaxa Bachiru ñu ngi koy ñaanal saa borom yag ko fi lol tam and ak wir non lañ ko seigne Cheikh Jëmb Fall waye tam seigne Bass Abdou Khadr nga xamne dem nañ fa yaatal ak mom bam am yene tew ci bis bi kon ñu leen ci wo di leen ko fatali bu lol jalle itam ñongi wo bepp étudiant bo xamanteni yaangi yaa université Cheikh Anta ci nga xamne bis bi. sa bis la ndàppuñu ci walla dàquñu ci ngërëmul kenn kurul ngërëmul borom Touba ndax daayira bu ci nekk xasida la tuddee kon bu ñu jógee ngir màggal xasida yi ca université ba loolee kat bépp daayira wala bépp murit buy nooyee xasida yi ñoo ngi la ciy woo bis boobee kat samedi bii di ñëw bu dellusiwee la bu dellusiwee la ci mois de juin. mu dëppoo kon le douze juin incha allah ñoo ngi koy amele ci campus social bi waaye di ko amele ci terrain bi nga xamante ni mooy terrain bu mag bi nga xam ne moo nekk ikat di terrain football bi kon bokk taalibe yi bis baa ngi noonu bisub xasida yi la waaye bisub borom Touba la ni ko mbokk taalibe yi waxee nag jëm ci commission yëpp muy mel ni lépp mat na waaye mu mel ni itam danañ def ci jeudi bi lu ñuy tuddee set setal roy ci maam Cheikh Fall ndax ku ne xam na ne bi muy nekk ndar danaan danaan moo moo bokk na ci Sénégal wala mën naa ne fii Sénégal moo njëkk a volontaire di set setal te sàkk woo ci dara kon incha allah jeudi danaan amal set setal à partir de 15 heures ci biir université bi yépp kon loolu itam maa ngi lancé waat appel ci ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa ci. bii université ba muy waa administration nga xam ne li ñu warlook ñoom def nañu ko mooy bind nañuy demande ñoo ngi dem seeni bureau ngir yaatal leen liggéey bi xam ne liggéey bi du benn fan du ñaari fan waaye ñetti fan la ndax set setal bi ak journée scientifique bi ak journée bi nga xamante ni mooy journée xasida bi ñoo ngi ci woowaat ñépp rek rawatina waa ëxlu xasida ci njiital waa diwaanu ëxlu xasida nga xam ne suñu am satu mbàkke mooy seen mooy kilifa ñu toftal ci bàyyi joon xidma kon jàngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf Serigne Cheikh Anta Diop jëwriñu liggéey bi jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi bis baa ngoog fas yéene nekk samedi le 12 juin incha allah wante lu ko jiitu mbokki taalibe yi vendredi le 11 juin laata vendredi sax daanaka le 10 juin muy euh, jeudi bi daanaka dafa am séeréer bi nga xam wax na ko léegi. 15 heures jëm ko kon foofu dañ fay woo mbokk taalibe yëpp rawatina ñi nga xam dañoo bokk Serigne Touba nekk université bi la 11 mai nag incha allah ajuma ji moom mooy nekk journée scientifique bu nar am solo bi nga xamante ne dégg ngeen ko léegi si programme bi ay professeur renommé ñooy defal panel boobu te amaana ku si ñëw incha allah mënees na see jaruñu lu bare bare bare wane samedi le 12 bi nag incha allah mbokk taalibe yi mooy nekk bisub xaside bi di bi nga xamante ne ngërëmal Sëñ Tuubaa lañ si dàkk. ak ñaanal sëriñ Muntaxa ak kilifa yi ñu yàgg fi loolu te ànd ak kon mbokk mbokk taalibe yi ñu ngi woo ñëpp si bis bi bàyyiwuñu góor yàlla yi bàyyiwuñu bayfaar yi bàyyiwuñu soxna yi bàyyiwuñu tànk yi bàyyiwuñu kenn tey ñi nga xamante ne suñu borom daf leen dimbalee ñu am doole tey jëf ko fi yoon bi bàyyiwuñu leen tamit ñoo leen jokk si liggéey bi ndax ay élèves étudiants ñoo fa yéenee amal bés bi nga xam daanaka seenug doole matew ko waaye moo ko taxawal ba troisième édition bi ak si kon boog ñu ngi si woo ñëpp di si woo ñëpp di fàttulaat mbokk taalibe yi bis bi incha allah képp koo xam ne sag jot matee na la ko mën nga teew université ñu bokk sant Serigne Touba am am mbégte si xasida yi waaye nag koo xamante ne bés bi jot bi ma teewlu ko mën ngaa teewlu direct bi seen télévision xasaay TV matal mustafa an kulli saratin walter amil xalxaya man jadawum bada matal mustafa amma yajuru lahum si wal ibadaati wax si min ashara jërë ngeen jëf jaa ngeen jëfati